consciente une jeunesse responsable moo tax ñu ngi féliciter ndax Je opposition suis mbëkk bi am fi man Wakam Je fa ci plage bi ay nit nous waxtaan ak gis réew Je réew combat Je la ci Sénégal ñen ñi ci ñun japonais la jud lañuy la fa lañuy judo ñi nek vietnamien ñi nek américain ñi nek français waye yalla moñu tanal fi dafa am lo xamne ken yalla du ci taggu ken moy fan ngay juddoo ñan ñoy doon say mbokk ñan ñoy doon say parents lolu ken mënu ko tanal bopam kon bu la yalla tanalé lolu fierté man amul lu gën Sénégal no noo munti tollu Sénégal gi moo ma la gënal parce que yàlla moom ma ko tànnal yàlla moo ma ko tànnal moo tax jafe-jafe am sa réew nga jël gaal daw loolu bokkul ci njàmbaar njàmbaar mooy jafe-jafe am na ci réew mi damay taxaw xeex ko ba jëlee fi jafe-jafe tax ñun on n'a pas le droit pas le droit d'échouer ñun on n'a pas parce que espoir bi sénégalais am ci ñun rawatina yeen ndaw ñi bu ñu échouer ñun sénégalais dootul gëm benn moroomu sénégalais abada motax nak maléni ma leen garantir lenn du ñu dé de dinañu réussir ba ngeen ne xalaat ñu woon li mëna mën na am incha allah moo la jeunesse consciente bi tok ne xalaatatu leen di mbëkki ndax Sénégal lépp a ngi fi suuf saa ngi nii ne yambalang suba ba léegi ñu ngi daw ci àll bi suuf kese la suuf si kenn bayul ñu am 700 kilomètres de côte war a mën a napp war a mën a sàmm àll baa ngi ne nii ñu am ay ressources naturel te dafa am lu ñu déglante woon ak yéen mooy ressources naturelles yooyu tey lañ ko. waaye ñun bu ñu yegg seet nañu fexe ba delloosi ko ci réew mi te ñu ngi ci te dina dellu si de luy pétrole di gaz di zircon di phosphate di leen ak leneen bu ñu paree liggéey bi ñuy liggéey bu dee Sénégal ñett la ci amoon dina ci am juróom-ñeent wala fukk bu soobee yàlla kon Sénégal bu amee loolu lépp dellu si nag nee naa leen ci seen jàmbaar Nous, au Sénégal nous na yu mu wara am Nous amna ñu xam-xam amna ñu gis-gis bëgg nañu réew mi seen loxo wa lan la nit di ci naan ngi nous fi jara daw bay daanu fi jara wax parce que yeen jël ngeen engagement ak ñun à toute la jeunesse nak la on ne vous laissera pas prendre les pirogues pour sortir de ce pays duñ ko def xalé bu am 17 ans 18 ans 20 ans tolloogoo fay am bay ñak pression sociale bi ñi wax warulaa tax a jël gaal di risquer sa bakkan bi parce que yow la la première ressource du pays yow jeune bi kon yeen waxuma taxuleen ma wax waye duñu bàyyi mu continuer xalé di jël gal ñu naan chaque jour nangami bakkan rot na fi gis ngeen bi ñu mujjee am noonu ñu naan 34 personnes la ñu fekk ci gaal gi su ma leen waroon image yi bi affaire bi ñëwee dama ne président dama woo président ne ko président defe naa lii dañ ko war a publier ba ndaw ñëpp gis ko parce que lii dara jaru ko ci àdduna mu ne ma mukk les images sont trop sensibles ma ne ko dañuy flouter image yi rek ñu wane gaal gi flouter image yi ba nit ñi gis corps yi ni ñu entassé nga wara xalaat ñooñu dans quelles conditions de souffrance ils ont dû perdre la vie amatooloo lekk amatooloo naan nekk seul ci gaal goo xam ne kenn xamul fu mu jëm lan moo ko fi jar réew nag su dee les autorités politiques sont des responsables loolu war nu ma leen bëgg bëgg bëgg bëgg xam ngeen ni suñu diggante ñun ak yéen relation de vérité la nu ma leen bëgg bëgg bëgg

ñu deful ñun état état bi génne 40 milliards ne 8 milliards yi pour secours la la ca des pour reconstruction la est-ce que ñoom mën nañu kon nooy politique politique politique danga ci war a ànd ak dignité mu sarse na ànd ceeg humilité ànd ceeg pudeur dañoo politiquer lu ne li coow nekkee tey jii démb rek dégg ngeen benn gaal boo xam ne marine nationale intercepté na ko ah xaw ma ñaata a de côte la ci nekkoon wala na mat peut-être cent cinquante ou deux cent jeunes génne nañu police génne nañu gendarmerie waaye bii faa génne nañu parce que duñu seetaan du naan nangami xale dee nañu géej gi loolu mënuñu ko nangu

kenn du ko gagné premier mi-temps même 7-0 deuxième mi-temps ngay nelaw nañ fay gis remontada mars 2024 premier mi-temps de deuxième mi-temps bi nak 17 novembre bu ngeen le président Diomaye président de la République ta xagn assemblée nationale ndax dina gouverner surtout que nous avons amee opposition pour irresponsable comme bii nga xam ne seen tappale demoon nañ sax ba ne dañoo bëgg a gouvernement 1960 ba léegi dans le gouvernement Nous ñu dans dañuy daaneel gouvernement kon lenn moo mën a deuxième mi-temps ñu sécuriser le score mooy le 17 novembre ñu jox une victoire éclatante et écrasante au président Bassirou Diomaye Faye

démb ba léegi région de Thiès mbirum ndox la ñuy wax ma wax leen ni le projet du grand transfert d'eau bi yéen dégg nga xam ne plus de 800 milliards muy l'un des plus importants projets de lancé nañ ko ba choisir nañu entreprise bi ko a def projet boobu li mu war a régler c'est le triangle Touba mour Dakar

moins peuple plus parce que vous avez les dirigeants que vous attendiez il faut soutenir ces dirigeants parce que si vous les soutenez vous soutenez vous-même vous les les de